ñu jéem seddoo li des ci kii rek yaag Ibrahima euh, lan nan député yi war a am mhm. ci législature bi ñu jëm yan façon député la ñu war a doon maanaam député boo xam ne doo fa nekkee mhm. naan ay euh, man kat député président la mhm. même bu indee benn loi boo xam ne nii du ma ko jéem a saytu sama yoon nekku ci waaye moom dee mu jóge ci moom rek au moment mu jóge ci moom te bëgg duñu voté ko dañ ko koy voté waaw ndax Sénégal mérité na di am xeetu député yu mel noo xam ne dañu fay nekk te bu ñu fa toogee nelaw képp lañ fay def nelaw rek du matin au soir ak lu ñu wax nga yëkkati sa loxo te doo xam sax li ñuy wax lan la. xam nga euh, xeetu député yooyu. waaw parti yu njëkk yee ci la ñu nekkoon ay député Macky Sall la député hmm. diw et cetera et cetera. Hmm. loolu je crois que culture boobu mu ngi suñu gannaaw. Hmm. parce que fi mu nekk nii. Pastef moo majoritaire. bu ñu xoolee ci élection. présidentielle présidentielle yi même bu ñu xoolee ci législative yi sax ballottage la mm-hmm. euh, yeewi askan bi mm-hmm. kon fi mu nekk nii dafa am benn renouvellement de la classe politique boo xam ni mm-hmm. je crois que il faut que nit ñi bàyyi ci xel te élection yi di ñëw mooy leeral mbir mi parce que boo xoolee dans yeewi askan bi amoon na Fanta Siro te intercoalition la woon sax yeewi wàllu après ku nekk dafa defal demal boppam taxawu taxawee ne lee wallu demee ne la et cetera mais bi ñu demee présidentielle da ngay xool taxawu Dakar ñaata pour cent la amoon. Mhm. est-ce que am na deux. waaw deux pourtant ci mhm. yeewi askan bi. Mhm. mu ngi amoon treize députés. est-ce que la mu am ci présidentielle bu doon législative est-ce que dana ci am treize députés. tout à fait je le crois pas. boo xoolee pur avant muy bokk yeewi askan bi ñaata député la amoon trois ou quatre. ba mu boolee trois. ba mu demee yeewi askan bi. mu am onze mais élection présidentielle yi ñaata la am je crois ay deux mhm. pour cent donc bu doon ay législative aussi du am onze députés c'est vrai taxawu un et quelque la am taxawu un moo am deux pur rek moo ci am deux pur kese moo ci am eh deux te moo nekk troisième. Mm, tout à fait le premier am 54 pour cent. Mm-hmm. Euh, coalition Diomaye. tout à fait le troisième am 2 pour cent xoolal écart bi entre 54 pour cent ah, ak 2 pour cent bi pur am. Mm, tout à taxawu 1,59. Mm-hmm. ñi ci des beaucoup plus bas. réew mi par exemple. voilà donc réew mi ci parti classique yi la bokk. Mm-hmm. PS ci parti classique yi la bokk. PDS ci parti classique yi laa ko boole. léegi élection yii di ñëw. on ne risque pas d'avoir des députés yoo xam ne mhm. majoritairement ci parti classique yooyu lay jóge ñi nga xam ne mhm. seen position liste nationale mhm. moo tax ñu nekk député parce que ku mel ni Koura Macky du woon mës a nekk député bu ko yi Sall décidé wul woon mmh. parce que dafa am ku mu remplacer mmh. kii moo koy remplacer mmh. donc am na ñeneen ñoo xam ne bu ñu leen tegul ci liste national seen dayoo politique dangay xool Abdou Mbow mi nga xam ne bureau de vote dañ ko gagné mais bu fekkoon ni dafa demoon élection départementale département Thiès du fal mm-hmm. liste national moo ko fal donc mm-hmm. mbir mi dafay gën a xat ci ñoom ci élection yi di ñëw mm-hmm. kon ay député Macky Sall la ak député Ablaye Wade la ak député euh, parti socialiste la yooyu dootu fi amat amati parce que ñu ngi jëm ci renouvellement de la classe politique te gis nga élection yi di ñëw doyen bu ñu ragal prolifération liste yi parce que parrainage amul dinañ am émergence wu ay nouveaux acteurs yoo xam ne dañuy dugg ci langue politique bi y compris Claire Vision parce que ñun aussi euh, dañuy dem taataan baatu askan bi te duñu parti politique classique donc profilu député yi ñu am ëllëg day wute lool lool lool lool lool ak législature yii passé yi nga xam ne gis nañ fi loo xam ne dafa dafa dafa désacraliser honorabilité député parce que député pourquoi ñu koy wax honorable mm-hmm. parce que dafa amoon benn prestige bu mu amoon boo xam ne dañ ko commencé màbbal mm-hmm. donc dañu am ñoo xam ne dañuy taxaw vraiment yitteeg soxla askan wi mm-hmm. parce que problème mu dëkk ay loi ak règlement ñoo koy réglé loi ak règlement nag fu ñu koy lijjante même boo amul niveau bi parce que élection presque locale la parce que say gox-goxaan ñoo lay investir ni yow la doyloo pour nga taxaw waa Tambacounda par exemple yow même bu fekkee ni doo cadre amoo niveau war ngaa mën a nekk député mais ci kaw aussi législature bii di ñëw ñu adjoindre leen ay assistants parlementaires quand même pour la qualité des débat parce que député bu war a def proposition de loi xamoo luy logistique maanaam anam ba ñuy bindee loi mm-hmm. mënoo compulser loi ba comprendre ko ba mën cee jël position loolu doo wax assemblée. Mhm. da ngay toog rek croiser les bras mais bu fekkee ne da nga am assistant parlementaire. Euh, gis naa koo xam ne dañ koy reetaan mais je crois qu'il se débrouille très bien euh, mhm. sëñ Bara Dolly. dina mhm. góorgóorlu comme mais imaginez kooku bu amoon assistant parlementaire. xëy na prestation am doon na gën a nekk de qualité. donc mënuñu am ay député intellectuel cadre kese. mais nañu xalaat. adjoint député yi nga xam ne dañ ko soxla. ay assistants parlementaires yoo xam ne ñoo leen di permettre ñu comprendre les lois. ñoo leen di permettre ñu jël position au profit des populations. ñoo leen di permettre ñu proposer ay lois wala ay amendements à des lois. pour que débat parlementaire bi législature bi nekk une législature de qualité. mais ay député yoo xam ne dañ fi nekk pour du folklore wala pour ñi leen dugal ci liste nationale. loolu je crois que c'est révolu parce que fi mu nekk nii dafa am ay changements yoo xam ne nit ñi bàyyiwuñ ko xel. xam nga il y a eu changement au sommet de l'État nguur gi changé na euh, gouvernement bi changé na euh, police bi changé na on a fait des changements à la direction de la police gendarmerie bi changé na justice bi changé na noonu la assemblée bi di changé tamit ñu ngi jëm ci benn cycle de renouvellement des institutions et de la classe politique boo xam ne nit ñi sentiruñ ko institution yëpp yooyu changé. Mmh. noonu la institution législative bi. nar a parce que moom moo ci des d' ailleurs. moom rek moo ci des d' mmh. te moo ci mujj. quelle claire vision tollu fan ci ci wàccaay wi. bon claire vision euh, mmh. créé na benn plateforme d' adhésion. et de de de concertation. bu tudd claire vision point net. parce que ñun amuñu ay 4x4 pour sillonner àll bi. mais de façon digital ku nekk fi mu toog. boo defee claire vision point net mën nga adhérer sa bopp. Euh, ñu poser la benn questionnaire nga remplir ko def say identifiant mm-hmm. sa carte génn automatiquement ak sa photo si tu veux mm-hmm. optionnel nga am sa numéro de carte am sa carte de membre jeex na da lay défalquer tout simplement 1000 francs hmm. ci benn plateforme de paiement tout est automatisé hmm. donc bu ñuy def ay réunion wala ñuy partager ay information ci document ci plateforme boobu lañ koy partager aussi hmm. bu ñuy def ay forum ay webinaire ci plateforme boobu lañ koy partager sa numéro euh, carte mooy sa code d'accès aller au forum qu'on fait aux oh. archives que je partage parce partage aussi euh, mes archives oh. yenn yenn rubrique yu bëri donc Claire noonu la fas yéene duggee ci élection législative su sa propre bannière parce que euh, organisation dafa war a am grade électoral oh. parce que fii nit ñi dañuy dem ci ay coalition sans évaluer seen bopp loolu aussi dafay sonal nit da xool rek yeewi askan bi euh, Pastef yóbbaale na ñu bëri je dirais même Sonko yóbbaale na ñu bëri ñoo xam ne seen représentativité Euh, ak euh, la ñu am c'est inversement proportionnel oh. maanaam lañ leen jox ci siège mhm. ak la ñu am ci mbooloo mhm. tolloowul mhm. kon day baax aussi ñun ñu am courage chaque fois dem directement ci Sénégalais yi recueillir le suffrage universel direct la ñu wax n'est-ce pas du suffrage direct la ñuy wax doyen donc munoo tout le temps ñu lay boot wala di la yóbbaale ci ay mm-hmm. liste yoo xam ne mm-hmm. dangay ngay buuxante ay place ay position pour mën a exister alors que yow mën nga naître mm-hmm. euh, comme euh, koo xam ne da nekk dans le débat public koo xam ne da nga nekk auprès des populations kon kooku war na bu taataan baatu askan bi jote nga jóg kat ni ah man de damay sàkku nekk seen ndaw assemblée nationale. Mm-hmm. donc loolu je crois que Claire Vision bi nga xam ne ñun ay serviteurs lañu aussi ñu ngi ci wa lancé boobu ñu ngi ci waajal suñu bopp. Mm-hmm. deux mois bëriwul. Ah mm-hmm. parrainage supprimé nañ ko. mais doyen les délais là aussi. je crois que noonu lay trouver solution. malheureusement comme. élection anticipée la il y aura pas de période de révision exceptionnelle des listes mais dañuy dem ak li fi l'existant mhm. et je crois que il faut mettre les bouchées doubles mhm. que ñu pare parce que effectivement confectionner liste législative oh. moo gën a difficile parce que départemental bi di nga ci oh. euh, majoritaire bi di nga ci travailler mm. mais di nga travailler aussi ci suppléants yi en tenant compte de la parité et de la répartition mm-hmm. dans au moins sept région mhm. donc loolu yëpp nag euh, c'est un dosage boo xam ne mhm. foog nga am commité électoral bu dynamique donc mhm. foog mu nekk liggéey liggéey boobu nag je crois que ñëpp du ñu pare le 17 novembre ci liggéey boobu donc commission bi nga xam ne moom mooy jël euh, dossier de candidature yi mën naa bañ a déborder trop te même bu déborder sax le jour du scrutin boo jëlee cinq enveloppes je crois que vote bi dina gaaw du am solution wala ñu ciy ragal ma ma macha allah en tout cas moom Euh, ñun grand place moom ñu ngi lay ñaanal nga nekk député. amiin amiin ah, ah je crois que askanu Sénégal dinañu <laughs>